nag jëm ci gën a dooleel soxna yi bu ko defee ñuy gën di mën a demal seen bopp yéenekaay bi di ñu xamal ne lu toll ci 668 millions dugal nañu ko ci ay infrastructure ba démb la ko ilimaanu jëwriñ ji moom Amadou Ba doon inauguré foofee ca Géejawaay Les Échos xëy nag di xamle ne Khalifa Sall moom ba nëgëni si nag ma nga ci tournée boobee mu dippee mottali yéen waaye nag cortège am dañu ko daal di bloqué foofee ca Fuuta ginnaaw gi nag moom moomee mu daal di wàcc di dox ànd ak militant am Khalifa di xamle ne nag naam bloqué ngeen samay woto yéene yi ma am ci askan wi moom danaa ko mottaleeg samay jéego Khalifa Sall ba tey muy xamle nag lu jëm ci procédure judiciaire bu jëm ci ki fi nekkoon njiital Pastef le quotidien yëglekaay dellu siwaat nag ci conseil ya muy jox Ousmane Sonko moom Khalifa Sall ci biir yëglekaay bi naan ko ñaar fukki weer ak juróom-ñett am naa ko ci wàllu parcours judiciaire Khalifa Sall Ousmane Sonko ak Karim wàdd nag ci kanamu cour suprême ndax bokkuñu fa benn combat bu ñu fay xeex loolee nag la xëtu yéenekaay bii di enquête daal di fësal lu jëm ci wàllu rabat confirmation de peine ak lu jëm ci wàllu rejet de pourvoi loolee lépp nag bokk lenn loo xamante nii rek dañ leen koy toppee ci wàllu yoon ñoom ñooñee di ay opposant politique Walf Quotidien dellu siwaat nag ci candidature pa may Meïssa Wade mu ne naam sori na nag waaye na mel ni jege na ndax mi ngi ci wàccaay ngir présidentielle yu atum 2024 beneen ub candidat buy njort nag ñu amal hold up ci élection présidentielle yi mu di Mary Teuw Niane moo doonoon ganub grand toral ci Rewmi TV ma ngay xam ne nag ni li ñu ne Amadou Ba am na ko ci ay parrain mu di ñetti millions loolee nag xel mënu koo nangu nangu moom professeur Mary Teuw Niane ne car rapide bu Benno Bokk Yaakaar dafa échoué keneen ku échoué kay jamono ji nag moo di Macky Sall l'observateur xëy na nag kuy dooleel jikko ju bon la ndax ñiy saaga ak wax lu ñaaw rek lay xamanteel bi ci mujj nag mi ngi ànd ak soxna si ñu naan Awa Chour daxoon a saaga ci internet bi te gisoon nañ fi itam ab photoom ak Kaliphone mi nga xam ne rek da ko daan saaga guddi ak bëccëg ba tey ci l'observateur ña ngay séq waxtaan bu yaatoo yaatoo ak kii di Youssou Ndour muy dellu siwaat ci lu soxal présidentiel yu 2024 si quotidien xëy deelu suwaat nag ci jafe-jafe yi ñu nemmeeku ci wàllu processus électoral bi ma ngay fësal nag waxtaan bi mu séq ak professeur Babacar Gueye muy deelu nag ci ñàkkum confiance ak it ñàkkum dialogue bi ñu nemmeeku ci acteur politique yi mu ne loolee nag bokk na ca la ko waral ci jamono joojee nag société civile moom ma ngay def ay ci lu soxal présidentielle yi ngir nag ñu daal jëmmal la ñu tënkoon ci assises nationales yi benn mbaw ci biir yëglekaay bi di l'info ne doole yi nga xam ne rek moo dajaloo ci njiitu nationale bu ko defee nag déggoo mën a am Mamadou Ndoye di ko feelu ne faaw nag candidat yépp jëfee lu ni mel bu ko defee nag fitna yi nga xam ne amoon na ci réewu Sénégal ci fan yi ñu weesu nag dootu fi amati ba faw yéenekaay bii di bés bi la jour xëy tey jii nag daal di ñuy xamaleek soxna si di Yohanidou Wandia di colonel nekkit directrice bu hôpital militaire bu Ouakam moom soxna si nag dundam ak jaar-jaaram ak nekkinam ak njabootam lépp nag yéenekaay bi daal dina ciy dellu siwaat ci jamono joojee nag yéenekaay bii di libération dellu siwaat ci tuuma yi nga xam ne rek gaalu nañ ko ci kii di Kabir Mbodj ginnaaw bi ñu ko làqee jant bi ci réewum France nag di ko toppee lu jëm ci wàllu viol ay soxna yu koy tuumaal nag mbir ya woon ci weeru octobre atum 2022 bi la yoon nag beneenub soxna moo dikkati nag di wax ne moom it dund na ak moom lu ñu mel ñaar fukki fan ak benn la woon ci weeru mai atum 2022 ñu jeexaleeg tàggat yaram ak yëglekaay bi di stade di xamle nag match bu rëy bi nga xam ne rek Bamba Dieng ak Sima def nañ ko niki démb yéenekaay bi di Rewmi ne Bamba Dieng nag moom moo sauvé ñii di waa